Nigeria. bari na ndox bari na yëpp boo amee boo liggéey boo tukkuloo boo defloo dar yaa ngi am njaboot yaa ngi am ah, yaa ngi am baay yaa ngi am sa nekkuloo boo béyloo yaa ngi lay sonn boo nekkee maa ngi def ni lii batasi lii pataas la lii mbokk boo man béykat laa xoolal sama loxo bi. ki fii Fuuta ki bi yëpp parce que adduna eh, ki béy ak jàng balaa jàng béy la boo lekkuloo doo jàng boo lekkee ah mun na jàng. fii jël amul ci foofu jël amul fii amul jël amul dara ci ball day dee amul dara soo day dee man kay dama bëggoon ci mbaal yi ak gaal ak moteur. moom lay bëgg min ngawi min pooɗi hamin tampi hay festival bi nag dajale woon ay autorité yu bëri ku si mel ni questeur bu assemblée nationale Daouda Dia moom mi nag di rafetlu lool mobilisation bu am solo bi nga xamante ni amal nañ ko fii organisation bi rafet na trop nit ñi bëri nañu lool fii nii fu ma lay waxee nii si podium la si kaw fleuve Sénégal lañu nekk si digg fleuve bi lañ def podium bi ñu ànd ak man ak samay àndandoo ñu toog fii di ci wax di donc dafa nek lo xam ne ni lu daw yaram la parce que ndeysaan dañu bëgg woné rek sen ciofel sen maire dañuy kontaan si liggéeyam mais aussi dañu bëgg à travers euh, journée bi ni joxé sen doléance comme ça ñu mën ko yeggale fu mu mëna yem inshallah allah ci taxaw ba lolu moy sen li leen nek sen mbëb ni ñu mën ko safar une bonne fois pour toutes. maire bu jéré profito ci ndaje mi ngir indi ay léral si Japante yi nga xamante ne na dox. si yenn si ay militants ak i garde corps yi. waaw organisation bi li ko gàllankoor ni mooy ñun daam invité yu ñu doon xaar mooy Abdou Karim Sall euh, directeur général de la démb la ñu defoon pose première pierre euh, fale Orkadiéré ñoo waroon ànd ñu am retard bu ndaw nag bu ñu ñëwee nag fekk mu xaw guddi comme lumière amul nit ñi dañu bari garde corps yu ñu àndaloon bon ñi si gën a bari xamuñu lii nii ñu ne am insécurité moo tax. ñu ñu génni pour génn si insécurité bi pour ñoom mais en réalité amul insécurité parce que ñun one est entre frères et sœurs man maa ngi fii nii su ma ñëw fii nii sax du ma am garde corps man. Yeah. Yeah.